waaw euh, kuréel gi moom mooy euh, Touba Ville Verte Nour Darayni euh, muy kuréel goo xam ni ci ndigalu sëñ Cyril Mokhtar Mbacké ñoom ñooy saytu tàndarma yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci jumaa ji kuréel gi nag mu ngi juddu ci mille neuf cent mille neuf cent ci 2012 sëñ Cyril Mokhtar ginnaaw bu ñu amee ndigalam mu boole ñu ak sëñ Modou Mouhamadou Mamoun Bousso mi nga xam ne moom mooy imaamu jumaay Touba teg ñu teg ñu nag ci loxo yi Euh, sëñ Abdou Samad muy sunu jëwriñ taxaw taxawuñu taxaw taxaw bu baax di kenn ci mbooloo mi liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def nag di ko def ci jumaa ji di taxawu tàndarma yi saytu bi entretien yi ci produit yi nga xam ne moom lay soxlawoo ak itamit euh, ci meññeent bi nga xam ne bu boo tàndarma yi meññee dañ koy dajale topp ko ba mu mel ni mu war a mel ñu jëbbal ko ki nga xam ne moom mooy xalifa euh, sëriñ Touba di sëñ Cyril Mokhtar liggéey boobu ndax wàllu environnement la te wàllu environnement daa am solo ci dundu doomu aadama rawatina ci Touba gi nga xam ne moom la ñu nekk nga xam ni boroom euh, wax nañ ni tur wi nga xam ne moom la tuddee dëkk bi mu ngi ko jëlee ci garab gu ne ci àjjana tudd Touba kon kooku lu wan loolu wane na fonkeelam ci garab ñun tamit liggéey boobu ñu topp ci def ko liggéey sëñ Touba ndax liggéey sañ Touba bari na ay ay ay banxaas waaye bi banqaas la boo xam ne banxaas bu am solo la ci liggéey muy wàllu garab dafa am njëriñ ci dundu doomu aadama ci wàll yu bari ci wàll social ci wàll économie ci wàllu écologie ci wàll yëpp wàllu goo ci jël garab dafa am lu muy andi ci dundu doomu aadama loo xam ne xëy na mënuñu ko détaillé ci interview bi nga xam ni dafay dafa gàtt waaye ñu xam ni euh, dund gi nga xam ne moom la ñuy dund fii ngir mu mën a gën a ñoŋ euh, tàngoor wi nga xam ne moo ne ci dëkk bi ngir mu wàññi ko moom garab rek moo ko mën a saafara ndox mi nga xam ne moom la ñuy naan ci dëkk bi ngir mu gën a sell jëmbat ay garab mooy tax ñu mën koo am loolu moo tax ñun ñu def suñu liggéey jël suñu liggéey féetal ko liggéey sëñ Tuubaa bi ñu tàmbalee ba léegi nag def nañ liggéey bu bari mooy liggéey bi nga gis tey jii mu nekk suñu ginnaaw muy koko yi nga xam ne moo nekk fii tàmbale ci rond-point bi garage bu njëkk ba ba ci arrondissement bi loolu ay koko loo xam ne def nañ ko fii def nañ ko ci kër sëñ Tuubaa yi bari jabootu sëñ tubaa gi fi nekk tamit seddale nañ leen ay garab yi koko ci ak mboolem kuréel yu mag yi nga xam ne dañuy liggéey sëñ Tuubaa nekk ci dëkk bi am ay siège jox nañ leen ay garab yi koko yoo xam ne dañ ko def foofu armée li nga xam ne mooy armée lu baax ya nga xam ne ñun murid yëpp bëgg nañu bu ñu liggéeyee ba matal fa la ñu bëgg ñu yóbbu ñu fa def nañ fa tamit ay garab yoo xam ne dana wàññi tàngoor ba fa nekk ngir mën a andi ker tey nag di bis boo xam ne bis bu rëy la ci yoonu murid muy bisu premier safar di benn bis ci weer bi nga xam ne ci la ñu waajal màggalu tubaa ñu tànn ko di ci def wéyal sunu liggéey di ci jëmbat ay garab ndax defoon nañu ay cocotier ba mu àgg arrondissement waaye ñu xam ni koko ci garab la goo xam ni dafa naqaree entretenir dafa bari agression jur gi ak nit ñi nga xam ni yëpp dañ koy dañ koy dañ koy faagaagal techniciens yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal conseiller ñu ñu jënd garab gi nga xam ne moom la ñuy wax laurier ñu def ci première phase tàmbali ci arrondissement bi ba ci station bi nga xam ne mooy Shell bi tey nag ci bisu premier safar bi ñu taamu ñu taamu ko amoon téeméeri laurier yoo xam ne dañ ko waroon jëmbat ñu def ko ci diggante boobu ba àgg ba ci rond-point Mbàkke bi mooy àggale euh, autoroute bi nga xam ne moom mooy dugg Touba kon liggéey boobu liggéey la boo xam ne sunu yéene la ñun ndax kuréel gi 2012 la jóge la juddu ba tey ñu ngi 2017 waaye yàlla dogal na suñu communication bariwul waaye loolu lépp stratégie la boo xam ne nit bu ñu la denkee mbir da nga koy ñoŋal ba mu dem ba dëgër nga soog ko yaatal soog ko ubbi waaye xam nañ ni liggéey bi liggéey sëñ Tuubaa la ñun ak yëpp ko bokk. kon murid yëpp seen place mi ngi ci biir liggéey bi ñu ngi leen di woo ci càmm gi ni diñ ko ni ñu wootee ni ñu wooyee jigéen ñi ak xale yi ñu sàmmal ñu garab yi waaye liggéey bi tamit yaatu na ñu ñëw bokk ci ndax am na yeneen projet yoo xam ne mi ngi sul kanam yu mag la yoo xam ne dafay laaj mbooloo mi yëpp ñëw ànd kook ñun ñu jàpp ko bi ciy jiitu bi ci gën a rëy muy deuxième autoroute cent vingt bi nga xam ne war naa wër dëkk bi di tubaa bëgg nañu wërale ko ay garab comme ni ñu wërale woon ay garabu niima ci premier euh, corniche bi nga xam ni moom lañ fi jëkk a def wërale ko ay garab nimaar te garab yooyu sunu yéene ak sunu liggéey bokk na ci ñu soppi ko def fa yeneen garab yoo xam ne moo ëpp njëriñ garabu nimaar waaye ñu xam ni 120 bi nga xam ne moo war a wëraat dëkk bi bëgg nañu ci sunu liggéey wërale ko ay garab bu ko defee dana wàññi euh, tàngoor bi nga xam ni moom moo am si dëkk bi. bëgg nañu tamit ci penku dëkk bi sunu digganteeg Linguère ñu def fa ba loo xam ne moom la ñuy wax mur boo xam ni rideau lay doon boo xam ne ay garab lay doon li ñuy wax brise yoo xam ne dana mën a wàññi tàngoor bi nga xam ne mooy jóge Linguère di ñëw di yokk tàngooru dëkk bi yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne kuréel gi am nañu pëseef am nañu yéene waaye liggéey la bu rëy boo xam ne dafa yaatu yoonu murid yëpp ñun ñëpp mu mbokk taal bi yëpp xañ nañ ci moo tax tey ñuy def woote bi ngir ñëpp xam ni liggéey baa ngi fi nooru daare nii daayira Sëriñ Tuubaa la liggéey Sëriñ Tuubaa ñu taamu di yëngutu ay ay garab te garab nekk lu am solo ci dund doomu aadama liggéey la boo xam ne murid yëpp la war war nañu ci suñu kër yi bopp war nañu ci fépp foo xam ne pénc la war nañu ci yoon yi nga xam ne moo ñu andi Touba war nañu ci li wër dëkk bépp waaw ci wàllu liggéey bi tamit comme ni ñu waxee léegi ni mu amee ay jëwriñ yoo xam ne ñoo koy saytu te sëñ Abdou Samad jiitu ci noonu la ñu amee tamit ñoo xam ne ñoo ñu jàppale ci wàllu technique bi ndax li ñuy def dafa laaj xam-xam rawatina ci wàllu produit yi nga xam ne moom la jëfandikoo ak fànn paysage nga xam ne garab yi fenn fu ci nekk ak garab ba fa war a dem loolu yëpp techniciens yi ñoo koy xalaat di ko saytu di ñu ko wax di ñu defaaleel formation tamit ndax ñu nit ñi nga xam ne ñoo ko yor di ko saytu dañoo war di jàng di xam garab di xam njëriñ li di xam garab gu ci nekk fan lañ ko war a def foo xam ne bu fa dundee dana am njëriñ ak foo xam ne bu ñu ko fa defee mën naa andi lor loolu yëpp ñu ràññeet la ko te loolu am nañu ay technicien yoo xam ne diggante euh, techniciens yi eaux et forêt yi ak yeneen techniciens yoo xam ni ay euh, ci garab mooy seen xam-xam ñu ngi ciy ci wàllu boobu. ñu ngi sant yàlla bu baax julli Seydina Mohamed di sant sëñ Sidi Moxtaar ñaan ko mu yàgg fi téwér yàgg ci ginnaawam liggéey bii nga xam ne moom lañ xëyee woon muy garab yi ñu doon jëmbat ci yoonu Mbàkke Touba bi te muy liggéey boo xam ne liggéey Sëriñ Touba rek la ñi ngi ñaan jigéen ñi man ci turu jigéen ñi lu ci ëpp ci laay gën a jublu nañ ñu dimbale ci ci jàppale gi rawati rawatina ñi nga xamante ne ñoo ko jege ñi jege ci yoon bi ñëpp nañ ñu dimbale ci roose bi ndax roose bi ku nekk xam ne noor bi day tàng day mbooye garab yi dañuy soxla ndox nañ ñuy dimbale ngir yàlla ci roose bi ku bëgg a bokk ci liggéey bi boo ñu woowee dinañ la dugal ci liggéey bi ndax liggéey sëñ Touba te defe naa liggéey sëñ Touba kenn du romb kenn mu mu di ca bañ a bok te nga dëkk ci Touba gi boo dëkkoon feneen tamit kon loolu la ñuy gën a soññe tey ñaan liñ ci jublu sëriñ bi bëgg ko ci ñu ñu ko taxawee yàlla na ko sëriñ Touba yombalal jàppale nu ci ndax ku mu jàppale rek da ngay taxaw te bëgg na ko ba noppi te day am yàlla nu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañ ko yóbbu fu mu ko bëggee ci barke sëriñ Touba woo nañ jigéen ñëpp nag woo nañ jigéen ñëpp woo nañ góor ñi nag waaye woo nañ jigéen ñëpp ñuy bokk ci liggéey bi ndax ku nekk xam ne ni jigéen moom lu mu bokk rek yàlla mën na caa def si kër jërëjëf gone yu ndaw yi fu gone mën a nekk rek mën ngaa bokk ci liggéey bi